ngir jàppale seen chaîne bi di seen xibaar info bu leen fàtte abonné wu ak like seen vidéo yi ñu leen jagleel seen xibaar info l'information en temps réel. fi mu tollu tembe moodu moodu yi dañu fippu ngir génn ci réew yi nga xamante ne doomu jàngoro bi di coronavirus mi ngi fay continuer di def ay ñombe. ci waxtu bi ñuy lijjanti problème 13 immigré yi nga xamante ne dañu bloqué depuis le 16 mars ci Maroc ak Mauritanie ca désert subsaharien ba. am na beneen lim bu gën a takku toll ci cinquante nga xam ne dañu coincé fële ci royaume chérifien nit ñooñu le ñi ngi yegsi ci frontière bi depuis mardi si suba kenn ci ñoom waxtaan na ak suñu confrère u Seneweb yi di leen xamal ni ba ñu yegsee ca poste de contrôle ba élément police bu daalaa yi daf leen xamal ni laissez-passer yi ñu yor baaxul te sax contrôleur ya nekk ca frontière ba kenn yëgalu leen ko ñi ëpp ci émigré yooyu ñi ngi bàyyikoo Europe ak réew bu mel ni Maroc foofa ca Casablanca ak Agadir gannaaw bañ leen xamalee ne mënuñoo yegsi fii ci Sénégal émigré yooyu delluwaat nañ fële ca Daala ca province bu ñuy wax Duwel el Dahab ngir am fu ñu nekk ba léegi ci waxtaan bi émigré bi séq ak waa Seneweb mi ngi xamle ne commissaire u bërëb ba moo leen wax ñu jóge ci frontière ba balaa ñoo yóbbu seen oto yi fourrière looloo tax ñu dellu foofu ca daala mi ngi jeexal ay kàddoom di xamle ne bépp hôtel ak restaurant wu réew ma bëggul ñu teew seeni bërëb ndax doomu jàngoro bii di coronavirus ba sax ñoom ci seeni oto la ñuy fanaan. waaw gars yi gis ngeen ne gars yi xool dañoo a génn gars yi xam nga génn ñu ñu téye ñu ci frontière bi di bàyyi Mauritaniens yi di génn di bàyyi Marocains yi di génn bàyyi ñu Sénégalais yi di génn pourquoi lii lii xam lii xam lii moom mooy loolu lii moom mooy loolu.

filmer leen. waaw. On ne peut pas rentrer, nous on va sortir. Il n'y a aucun problème. C'est l'autre ñoo ngi nii gars yi bloqué oto yëpp ñoo ngi nii lépp Seynabou Diop pour Sen Xibaar Info